président de la république M. Macky Sall dafa jël cinq initiatives pour le second mandat première initiative bi mooy jeunesse et yaakaar a ne loolu bu de jëlee dafa xam le jeunesse Sénégal Ou représenter wala le jeunesse Sénégal pour représenter ëllëg pour l'émergence de ce pays kon boobu bu taxawalee loolu ñun dañ siy xaar suñu tànk tubay ndaxte ñépp xam nañ ne kaw la population est essentiellement jeune moo tax dama ne dañu war a ànd ñu jàpp ñu booloo ñu xool yan solution lañu war a def yan solution lañu war a trouver pour Kaolack président jëlaat beneen initiative muy PSE vert waxoon naa ko daaw nag président xëy na antoogul mais yaakaar naa ne IARAN dina ko sottal waxoon naa ne dañuy préparer et man pare woon naa pour mettre des récompenses pour que ASC bu nekk au lieu que concours bi di nekk uniquement sur le plan sportif parce que ASC la ñu wax association sportive et culturelle président man pare naa maître des prix pour que ASC bu ëpp taux de réussite au baccalauréat ñu premier ko au niveau de la soit ñu ne ASC bu ëpp taux de réussite à l'entrée en sixième ñu premier dama bëgg ñu def yeneen type de championnat yoo xam ne du football bi te loolu pare naa pour pare na ko. kon dee l'année prochaine mu am beneen beneen beneen compétition bu ma si bu ko yokk mooy président daf ne PSE vert beneen quatrième initiative mu waxaat zéro déchet ci programme prioritaire pare naa teg ay prix pour que ASC e bu am quartier le plus propre de chaque zone ñu jox ko brut ASC bu am quartier le plus propre du département ñu jox ko prix boobu pare naa ko dee la nekk gën ASC yi ñu mën def Sénégal mënul am beneen moteur de développement boo xam ne mun na gën a am doole ñu ASC yi doon parce que jeunesse xam-xam bi ak kàttan bi mu ngi si biir ASC kon loolu moo nekkoon message bu ma leen di e. lancer nah, tey di wax ne président pare naa si accompagnement boobu léegi prix nañ toog ñu waxtaan si xëy na mën nañ def prix boo xam ne sax dinañ dem ba ASC bu gën a am taux de réussite bac wala bu am quartier le plus propre ñu engagé wu jël l'ensemble de ses frais financiers pour tournoi bi di ñëw loolu mën na nekk su ngeen paree ñun pare nekk parce que ASC yi ñoo war a doxal kaw la ensemble ñu taxaw ñu xam ne ñun kaw la ñoo ko moom Kaolack ñun ñoo ko war a defar yaakaar naa leen si gëm naa ne mun nañ si yegg yàlla nañu si yàlla jàppale jërë ngeen jëf incha allah